jërë ngeen jëf ku takk màgget wala fi ne boo taxanewul ab sedd dana la rey Amadou Ba mi ñu def candidat bu Benno Bokk Yaakaar l'observateur nee nañu ma nga ca waar wa tàmbalee bay ubbil yéene kay bi petit palais di këru premier ministre dafa soppeekoon doon quartier général bu waa Benno Bokk Yaakaar ay responsable yu mag yu nekk ci majorité bi ci ñoom ñu ràññee ci ay cadre yu bokk ci APR ak ay kilifa yu bokk ci cabinet politique bu président Macky ñoo daje woon ci petit palais muy ci kër doon fa def seenub réunion ngir nàmmu seeni ngànnaay nas fa seeni pexe yu ñu mën a attaqué élection présidentielle yu 2024 ci yi ñoo ba l'observateur a dem ak ñi nekk ci tànki dem muy Aly di Youssou Sandiara di Njool Bawal Ndonga Njaay di Mari ak Mam Boy Jaaw moom Jaaw Kolda moomee sax l'Observateur ne nañu am nañuy xibaar yu leen xamal ne jot naa déggante ak Amadou Ba ci téléphone ngir ñu seet nu ñuy def ba gisee ngir toog waxtaan Tribune mel ne ku naan ñu ci xët mu njëkk ñoom la rek ñoomu nen la ñoom waa APR ñooy gérante ci seen biir candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba bi farandoom yi jàpp ne dafay gagné élection a ko ñu bari di xool ci réew mi muy fonctionnaire bu yor ba liw ci réew moo xam ne ñu bari ci gobar jaasi la dëkke ku lakk mburu tuddub dëkk Abdoulaye Daouda Diallo mi ñu ne keroog ba muy wax wax na ba pare te tuddul benn yoon turu Amadou Ba ca waxam ja honorable député Abdou Mbow bokk ci ñuy jàppal tànk Abdoulaye Daouda Diallo journaliste ko nee na ñu indi na ci tontu lu wex xat Abdou Mbow nee na bi Abdoulaye Daouda Diallo taxawee jël engagement ne dina def kéemtalaay kàttanam ngir 2024 ñu am ca ndam loolee wax ay muy wax ay muus taxul ko taxoon di wax wax na it moom Abdou Mbow ne Amadou Daouda Diallo danañu gisee danañu waxtaan wax ji njiit réew mi Macky Sall wax ci assemblée générale des nations unies ba woon ca New York wax ji mi ngi xëy di riir ci yéenekaay yu bari réew mi quotidien bind nañ njiit réew mi Macky Sall na ca ndajam ak ñàkkum ndox gi am ci Afrique li quotidien nañu li mu bëgg moom président Macky Sall moo di at mu nekk ñu natt lu toll ci fukki junni milliards ak juróom-ñett di ko jàppale réewi Afrique yi ngir na ba tàgguwaale tàggatoo bu daw yaram journal point actu gis na ne moom Macky Sall wéetoon na lool ca nganam ga ca New York waa kër Ousmane Sonko yi wan nañu ko fa biddiw bëccëg te gisul kenn ko ko taxawal kuro Macky ma ko doon jéem gaañ a xaw tuuti ñu muraake ko fa Farba mi ñu dénk wàllu mobilisation ak wàllu propagande ca diaspora ba point actu nee nañu defuloon rolam ndax bokkuloon ci ñi àndoon ak président Macky ca New York fot fot tàggalewul mbaam ak noppam faat nañu Pastef ci Sénégal Africa Jom Center njiitam di Alioune Tine mi ngi wax ci xët mu njëkk Vox Populi ne mbiri Ousmane Sonko ab bomb la bu ñu war a désamorcer gaz bi kalaate ci jëppal dexkale keroog ba yóbbu fa ay bakkan ak marché Mbàkke bi doon lakk yii mooy journal Tribune xëy ci xët mu njëkk lakk ga woon ca marché bu Mbàkke yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne yóbbaale na lu mat juróom-ñetti cantine gaz bi explosif fii ci Ndakaaru yóbbu na ñetti bakkan L'Observateur ne ko ëpp na ko ñaari nit la ñu doon wax ne ñoo faatu woon ci gaz bi explosé woon ci génn kër gu nekk ca dexkale bilan ba yokku na léegi ñoo ngi toll ci ñeenti nit juróomi nit bokk ci benn famille te ñu jàppoon leen ci coowal cocktail molotov ci genn kër gu nekk ca boori lycée Maurice Delafosse suur soit xëy na di ñu ci baaxee yeneen i xibaar ki ñu jàpp ne mooy cerveau ba ñu naan ko Ousmane Fall di coordonnateur bu Pastef ci Gueule Tapée Fass bi nee nañu alkaati yi ngi koy wër wër gu métti tëjee derkale gën léegi ñeenti bakkan la ñu ca daal di lim ci ñu faatu am ci ñu ami gaañu ba tëdd hôpital euh, monsieur le ministre Birame Faye mi ñu toftal ci ministre intérieur yore wàllu sécurité proximité ma nga fa woon ànd ak monsieur le bu Ndakaaru Alhassane Sall doon masawoo ko jaale njaboot gi waaye it moom jëwriñ ji xam leen ni dinañ defi gëstu ba xam lu waral musiba googeeku tiis naqar fa ñoom député bu Mauritanie euh, bu yëglu euh, Birame euh, daa Abe ci mbiri yubasi bi yubasi bi moom moom it doomu Sénégal la waaye doomu Mauritanie dana ko doon di jàpp fii Sénégal yóbbu ca Mauritanie extradé boobaak léegi nag amuñu benn nouvelle ci moom moo waral yëglu député bi Birame Da Abe dafa jàpp ne mu ngi ci danger jamono yi dégg ngeen ko ci xibaar yeeg Babacar Fall Euh, kàddu yu tàggatoo yu président Sall ci kanamu euh, conseil euh, des nations unies conseil de sécurité moom président Macky Sall waxaat na ci àddina ak ni mu tëddee tëralin yi nga xamante ni moom la mbootaayu xeet yi ONU di doxee boobaak léegi faaw ñu soppi ko muy ci bépp fànn nag ci wàllu koppar ak économie politique daanaka ci gàttal dafa wees ñu gën ko dëppaleeg jamono wàllu Afrique it naka noonu ak jàmm ji ak nees koy wutee ndax terrorisme du ci rax waaye it fexe ba lu mel ni ci conseil de sécurité ñu xajal fa ubbil buntu ab toogu waaye ñu jafe Tiwaawoon di waajal gàmmu gi moo waral tey ji ñuy am gan monsieur premier ministre Amadou Ba ci àllarba ji fekkoon na booba jëwriñ ji ñu dénk ndox mi ak assainissement Serigne Mbaye Thiam demoon fa doon nimmiku forage yi fa nguur gi def lu dugal ca ñeenti milliards fu nu ca toll ci liggéey bi loolu lépp ngir ndox mu doy ngir taalibe yi incha allah bu keroogee mawlud gi vingt tiis woon ca Derklé lim ba ci ñi ñàkk seen bakkan ci gaz bu fa kalaatee gën na daal di yokku léegi ci ñeent la toll ñi ci ñàkk seen bakkan ci tiis woowee démb ministre bi ñu dénk wàllu euh, sécurité de proximité euh, Birame Faye ma nga fa woon ànd ci gouverneur bu Ndakaaru Alhassane Sall euh, doon jébbal njaalu état bu Sénégal moom jëwriñ ji ne daanu def gëstu ba xam lu waral ji junni mel député parti bi euh, moom euh, mooy yëglu ndax dafa jàpp ne daal euh, wala boog benn député mooy yëglu ci mbiri Yuba Sibi Yuba Sibi doomu Sénégal bu xeeto it ca Mauritanie di yëngu lool ci wàllu xeex beeg wàllum jàmm dañu ko daal di tege loxo ci Sénégal extradé yóbbu Mauritanie ab député ca parlement ba nag gis ne mu ngi jamono yi ci danger moo waral yëglu gi di ngeen ko déglu moom biram abe ci wàllu xibaar bokk na ci discours di ay kàddu yu tàggatu yu président Sall ne njiitu réew ci kanamu Nations Unies Euh, démb ci New York wax na fa ci àddina beeg nañ ko war a euh, moolaateeg tëral euh, ci wàllu jëflante ak it conseil de sécurité bi war a ubbi li buntam waa Afrique ni ko gv defe defee. waaye wàllu tukki mi war nañu soxe ba daal di amal ay tëralin yoo xamante ni dootul jur musiba yi muy jur ci Afrique ak ñoom waa tugal ak yuuxu gi fu ne. fii ci Sénégal ca diwaanu Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu ñu ngi waajal gàmmu gi incha allah àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi di kon àllarba ji di ñëw lay doon. ci fànn woowee nag dinañ am gan ñoom waa Tiwaawoon tey muy monsieur ko premier ministre Amadou Ba euh, fekk na booba démb Serigne Mbaye Thiam mi ñu dénk wàllu assainissement ndox mi ma nga fa woon moom it lépp ba tey lu jëm ci waajal euh, màggal gane si àddina gën gi mbindeef rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci technique bi Abdoulaye Diop. ay kàddoom yu mujj ne njiitam réew président Sall daal di ko yëkkati demb ci soixante-dix-huitième assemblée générale euh, bu Nations Unies ca New York wax na ci wàllu tukki mi ci anam yu dëppoowul ak yoon ak it euh, la ci juddoo ne ay tiis ak i naqar nees war a def ba euh, soppar ni tëralin yi waaye it wàlluk jàmm ci Afrique ki ONU na mu cay doxale warees na ko xoolaat ginnaaw àddina dafa soppiku lool ak terrorisme ci rax yeneen faaw ONU ci boppam méngoog jamono ndongo ci tribune des nations unies Macky Sall li njëkk nag ci ay kàddoom moo di naqarlu ndóol ak ñàkk yamale gi nga xamante ni lu ci bëri ci ay millions yu doomu aadama ci àdduna bi wërngal këpp moom la ñuy dund moom njiitu réew mi jàpp ni nag lii injustice sociale la boo xamante ni dafa mel ni kenn jéemu ci dara. pour des millions de personnes. am na ay millions yi millions yu doomi aadama yoo xamante ni ñàkk la ñuy dund toltolaan ak ay mérital yu ñu teg. président de la république daal di àddu boole kooku naqarlu ci wàlluk mbëkk mi Macky Sall jàpp ni du ay ngir saafara nag gile mbir moo daal dee manqué xanaa kañ anam gën koy doxalee rek nag ci la ñu war a jublu. mbëkk meeg li ñu fiy gis ni mu doyee waar dinu ñu fàttali ni am na solo ngir ñu doxal lii di pacte mondial ngir nit ñi di mën a dem diggante dëkk ak dëkk ci anam goo xamante ni dañ koy organiser mu ànd ak kaaraange. soldaar si nga xamante ni fi mu toll nii simila ak saala ci Afrique ñu daal di foqati nguur Macky Sall ne Sénégal tey jii nag la gën a ñaawlu doxalin gu nu mel waaye mu ni a Afrique moo di lu ci wàllu terrorisme. à maintes reprises le Sénégal ay yoon yoon Sénégal mi ngi doon artu nag ci inefficacité opération maintien de la paix yi amal ci Afrique ndax mandat yi ak seen équipement yi méngootul ak situation bi ci terrain bi. ci biir discours am Sall fàttewul tamit waa Palestine mu ne Sénégal tey nag la gën a taxaw ngir sàkku ba askanu Palestine daal de am nag seen réewum bopp ci suuf soo xamante ni dañuy dëkkandoo ak waa Israël waaye ku ci nekk it daal de sa frontière moroom gannaaw ginnaaw gi ci le président de la république daal dee tàggu waa assemblée générale des nations unies moom Macky Sall ni élection présidentielle yu dana am ci anam gu leer te mucc ayib ba tax njiitu réew mi jeexalee ko ak dénkaane ki nga xamante ni moo ko nar a wuutu ci mboolem réew yi nga xamante ni ñoo bokk ci nations unies. à tous mes collègues en les priant d'accueillir mon successeur avec la même amitié et la même considération. moom jiitu réew mi ba tey président Macky Sall ci tribune bu euh, Nations Unies wax na ci euh, li nga xamante ni mooy doxalin woowoon boobaak léegi euh, ñeel mbootaayu xeet yi di ni ci wàllug politique waaye it koom-koom ak leneen dafa jàpp moom jiitu réew bu Sénégal ni faaw ay coppite gën a méngoog jamono ca sax ONU dem ba ubbi li buntam maanaam bu conseil de sécurité bi waa Union africaine ni ko G20 defee président Sall ñu teewlu ko. le Sénégal reconnaît le service. Sénégal nag mi nga xamante ne ni système bu Nations ak bu banque mondiale ak waa FMI ak yu ni xeetoo ñi ngi koy euh, jëmale ci réew yi nga xamante ne ñoo ci bokk daanaka juróom-ñett fukki at mi ngi nii boobaak léegi waaye nag jot nañu xam ni système multilatéral bi ni muy doxee fi mu toll nii méngootul ak jamono dafa daal dee moo tax gis ngeen ni ko kii di secrétaire général Antonio Guterres euh, daal dee ni système boo xamante ne nii ni muy doxee méngootul ak fi jamono daal dee toll wala mu dem ba mel ni sax kuy soofantal li nga xamante ni moo di bëgg-bëggu lu ëpp ci membre yi nga xamante ne nii ñoom ñoo imposé loolee day gën a yokk nag lii di inégalité te dafay gën a tax sax réew yi ci bokk nag di ko gën di ŋàññ te bu yàggee loolee féewu loolee daal di indi moo tax nag bu ñu bëggee moytandiku loolee di xaajaloo boobee lay gën tey xalaat bi gën a yennu maanaa moo di ñu daal di réformer waat lii di gouvernance politique économique et financière bu àdduna bi bu ko defee nag ku nekk daal day gis boppam ci ni muy doxee te su boobaa day gën a légitime ndax ñëpp ñoo ciy ànd gën koo dooleel kenn dootu ko ŋàññ mën nañ caa àgg nekk la ñoom daal dinañu wane yoon bi ndax nangu nañu boole seen biir ñoo africaine mu nekk membre de plein droit Sénégal doon ci dox di ci wax ba mu daal dee antu exemple boobee nag waa G20 daal dee wane lu nu bëgg nag waa conseil de sécurité ak institution Bretton Woods yi daal di koy doxe bu ko defee ñu am multilatéralisme boo xamante ni ñëpp ciy gis seen bopp réew mi ci nekk sa intérêt nag dañ koy daal di mën a bàyyi xel bu baax. plus représentatif des de tous ses membres. njiitu réew mi président Macky Sall mbootaayu xeet yi ca New Euh, ci tekki gi ñeel kàddu yi ci français ñu àndoon ceeg ndongo ka benn doomu Sénégal bu fekk baax ci Mauritanie également maanaam euh, sénégalu mauritanien la euh, moom yuba si bi jamono yi daal ñi nga xamante ni ñoo yëngu foofa yépp ci wàllu ak ak yelleef rawatina député yi kenn ci ñoom ci Mauritanie jàpp ne muggi ci musiba ndax dañ ko teg loxo fii ci Sénégal sax lañ ko jàppee woon yóbbu ca gànnaar boobaak léegi amuñu benn tegtal ci moom yuba si bi moo waral yëglug kenn ci député yu Mauritanie Biram Da Abe ñu teewlu ko Babacar Fall. Yumbal Qawz ngi ko teg loxo ajuma bi weesu police bu Sénégal nag moo def ni nu mel jële ko Dakar yóbbu ko Mauritanie jox ko nag wala jëbal ko kilifay réew Mauritanie Sénégal nag dafa wax ne Mauritanie moo ko bind ngir mu jële ko foofu andi ko fii. les autorités sénégalaises prétendent que la Mauritanie. fan fi egg ba tey nag xamuñu ci yan anam la ne dañoo sax xamul fa mu ne faf ban commissariat la ne ci lu ëpp ci commissariat yi ñu xam ñun ñu fa nekkoon ñu bëgg dañ leen fa dal di faat te bu ñu xoolee at yi weesu ay téeméeri téeméeri wayjur ñàkk nañu seen i bakkan ci nu mel rawatina ci atum 1990 ak tey. au cours euh, des années 90. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. téeméeri fan benn ngi mu ne ci kaso bi papa Abdoulaye Touré njaboot gi di ko dund ci anam yu mitti ca tiis euh, ci ñoom yaay jë euh, àdduna ci micro bu RFM jàpp na euh, benn ci wàllu njort ne kenn waralul jàpp gi ku may ministre de la jeunesse ndax gisul lu doom je def ba waral kon téegi boobaak léegi démb lañ doon amal ndaje ngir amal li ñaan jëmee ci moom mu génn ci kaso bi ci cité Apex la woon ci Tivaouane Peulh Ba. doo xam metti waay ab yaay bu jaaxle Roxaya Njaay mënul sax tey ay rango ñam lu ëpp ñetti weer doomam bii di Papa Abdoulaye Touré ñu daldi koy tëj te amul nag benn motif bu ko waral bu ñu sukkandikoo ci moom. xanaa naqar rek naqar ak amoon na ay jamono nag mënuma ko woon talaata bi daal di def centième jour bi nga xamante ni ñu ngi tey activiste bi ñu daal koy toppi def yenn ñaawteef yi woote fitna ak yeneen di ay tuuma yoo xamante ne yaayam mu ngi koy weddi ba mu set. yoroo briquet yoroo essence yoroo euh, cocktail molotov yoroo dara lu dul sa portable portable lañ fekk ci moom kese taxaw ñu fekk ko fi mu taxaw ñu jàpp ko dóor ko tudd carrément diwañu yoon Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse. wérgu yarum Pape Abdoulaye Touré mu ngi daal di tane bu ñu sukkandiku ci Rokhaya Ndiaye moom nag mu jàpp ne doomam ak yeneen détenu yi nga xamante ne dañ leen di woowee détenu politique dañ leen la war jàppee nga doo ko mën a juge xam nañ ne loolu jàll xëy dañoo bëgg a kereewaat leneen luñ koy taxal te yu yàgg ci kaso yu jaarul yoon doon nag lu waa mouvement F24 di ñaawlu ñu ñëwoon féddali seen colère ak famille Pape Abdoulaye Touré Mamadou Mbodj di coordonnateur bi mooy naqarlu parce que koo xam ne deful dara ay nerf bi jàpp ko ñëw ni tel ministre moo ñu yónni yow ko gendarme jàpp ko damm loxom damm tànkam toj boppam ñu dugal ko ci kaso bi mënuñ ko faj normalement vraiment loolu mooy arbitraire organiser ay ñaan ngir ñu bàyyi seen doom waaye itam bi gën a diis ci jéey ji woon ca Derklé gaz bu fa kalaate euh, ci njëlbeen si ñaari bakkan rot ci waaye jamono ñeent euh, ñu ci ñàkk seen bakkan muy aw tiis lool ministre bi ñu dénk wàllu euh, sécurité proximité toftal ko ci ministre intérieur Birame Faye mu nga fa woon àndoon ci ak gouverneur am Ndakaaru Alhassane Sall doon masoo ko jaale njaboot gi waaye jëwriñ ji xam ni daanu def gëstu di enquête ngir xam lu waral musiba guddi reportage ci rek léegi Seydina Bilal Niang ma toog foofu ak ñoom ba ngoon gi ma daan ne maa ngi dem parce que j'étais fatigué quoi et bi ma demee nag bi ma demee ci yoon bi lañ ma woo ne ma kaay yu docteur ma ñëw il m'a fait comprendre qu'il était mu doon ay kàddu yu njëkk ñeel waajur bi nga xamante ne dafa ñàkk soxnaam ñaar ci ay doomam waaye tamit benn jarbaatam ñoom ñëpp daalee des ci lakk gi nga xamante ne ab butéelu gaz moo ko waral ci ay bës bi ñu génn Cheikh Gueye nekk maire bu commune jëppal Derklé di ñu xamal ni métit bi foo ko natt weesu na ko waaw dund nañu jafe-jafe yu tar yu métti ndax keroog bi ñuy waajal ajuma ji lañ ñu wax ni xibaar bi muy benn bonbonu gaz bu explose fukki nit ak ñaar gaañu ci lakk-lakk yu hôpital sax seeti leen waaye ni ma leen gisee métro na lool ci suba sën lañ ñu xibaar ni ñaar faatu nañ muy soxna si ak doom ba démb ci waxtu yi ñu ngi ci armée yi sën lañ leen denc tey ñu xibaaraat ñu it ni yeneen ñaar wàññeeku nañ ñooñu wàññeeku jiituñu barsax yal na yàlla yeesal yërmande ci seen kaw. Birame fay nekk ministre bi ñu toftal ci ministre bi ñu dénk kaaraange réew mi ñëwoon ngir andi njaaluk état wu Sénégal. donc sama kaddu kaddu indi njaal gouvernement bi bokkul ak naqar yi ak faj di leen massawu di ñaan yàlla ñu fi jógee yàlla xaar leen arjana yàlla may leen xolu muñ ñi nga xam ay blessé lañu aussi yàlla yëkkati leen moom mi la di xam la ne daañu ubbi ab l'enquête ci lu yàggul dara comme ni ko nguur di defee fu nekk itam bi dina def liggéeyam ba ci cappaandaw li ba cause réelle yi ko si tey responsabilité yi et puis a jël aussi ñu moom ministre bi di ñaax askan wi ngir rekk ñu gën a fàggu bu ñu nekkee ci kër yi ngir gën a moytu mbir mu ni mel def di ci ànd ak imam Mactar Sylla it. sport gi ñu ànd ak El Hadji Youssouf Bodian. ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu dooree ko ak euh, football Ligue des champions ca Europe nañu wéyal bëccëg bu njëkk bi euh, tey ci euh, mercredi bi. match bu am solo ñu ngi koy xaarandi diggante Bayern Munich ak Manchester United bu 19 jotee di ñaari équipe yoo xamante ni jotoon nañu daje ci final bu rëy euh, ci Ligue des champions ci atum 1999 Manchester United daal di wëlbati kon Bayern Munich euh, daan ko ñaari équipe yooyu kon tey ci ngoon ñoom ñooy daje ngeen mën a dégloo match bi en direct ci rajo Futur Média. Real Madrid moom mi ëpp li mu gagné Ligue des champions moom it tey lay joué digganteem ak Union Berlin di bu Allemagne bu 19h jotee Ligue des bi dëmb la door ci groupe F bi Paris Saint-Germain moo daan Dortmund ñaari bal ci dara Kylian Mbappé moo dugal ci penalty Hakimi doomu Maroc moo dugal ñaareelu but bu Paris Saint-Germain Milan AC dafa def match nul ak Newcastle euh, zéro partout ci group C bi champion en titre bi ki yor raaya bi di Manchester City étoile rouge de Belgrade la daan ñetti bal ci benn Julián Alvarez moo dugal ñaari but pour euh, City attaquant sénégalais bi di Pape Chérif Ndiaye am 27 ans nekkoon titulaire ak club serbe bi euh, ñoom sax ñoo mënewoon ci mi bi benn bal ci dara doomu Allemagne yu Leipzig euh, ñoom dañoo dem daan Young Boys de Berne ñetti bal ci benn ci onze départ équipe suisse bi amoon na milieu terrain bu Sénégal Cheikh Tidiane Niass am 23 ans judo fële ca Gossas ci groupe H bi FC Barcelone moo daan Belgiu Royal Antwerp juróomi bal ci dara Joao Félix dugal ñaari but Lewandowski ak Gabi ñoom it dugal nañu ci match le Shakhtar Donetsk FC Porto fekk ko daan ko ñetti bal ci benn ci groupe E bi Lazio bu xom Atlético Madrid un but partout lañ def italien lañ leen mëne ba quatre-vingt-quinzième minute seen gardien daal di yéeg égalisé Ivan Provedel lay wuyoo mooy gardien Lazio di doomu Italie moo égalisé pour Lazio bu Rome Feyenoord Rotterdam bu Pays-Bas moom moo daan Celtic Glasgow bu Écosse ñaari bal ci dara ñu football ba tey ak coupe du monde ñi dul dégg te duñu wax mu amee coppeeku yu am kon ci groupe yi ndax Sénégal léegi ci groupe B bi la nekk am na ànd ceeg Argentine Ukraine nekk champion olympique ak Thaïlande ay coppeeku yoo xamante ni kon li ko waral mooy am na équipe yu waroon bokk kon ci coupe du monde boobule te mujj fomm. coupe du monde bi ñu koy amal 23 septembre à 7 octobre ca Malaisie poule bi ba tey Sénégal mën na ci génn ci gis-gisu sélectionneur équipe nationale boobule di Souleymane Bara Fomba. ko ñu ngi koy waajal boobu ba tey depuis juróomi weer. waaw dégg yi ñu ngi ñuy jox information que dañu changé waat poule yi parce que dafa am équipe yoo xam ne dañoo désisté ñëwuñu quoi moo tax yëf yi changé waat quoi donc ñu ngi léegi ci poule B bi nekk fa ak euh, Ukraine ak euh, Argentine ak euh, Thaïlande. donc Ukraine moom xam nañ ko parce que moom moo jëloon Jeux olympiques yi amoon fële ca Brésil donc euh, Argentine xamuñu ko noonu euh, euh, Thaïlande tamit la même chose mais nag nekk na poule boo xam ne daal am nañ ci yaakaar daal am nañ ci yaakaar bu baax a baax waaw ñu ngi ciy am yaakaar bu baax di wax ni daal nañ ci ñaanal rek waaw Sénégal yëpp jàpp ñu ñaanal ñu daal. ñu waxtaanee football ba tey bi yoon nawetaan ak ASC yi nekk ci commune bu Gassane ci département bu Linguère ñoom jot nañu ay maillot ak ay euh, ballon ngir kon gën a ñoŋal seen championnat populaire boobule ñu sàkku ci ñoom tamit euh, ñu bañ a amal euh, violence ñu ànd ci ak Baye Assane Diaw. mbégte moo feeñ tey si ñi ngànk mouvement nawetaan ci Gassane ginnaaw bi ñu bérélee ni mooy gulet bi yoon ñu baaxee leen yi la jumtukaay. Babacar mu jiite poul bu Gassane féete ci zone zone bu Cerny. ay jeunes la yoo xam ne nii vraiment tey dañ taxawal fii wul bi nga xam ne moom moo nekk Gassane donc ñuy bokk zone Cerny. journée tey bi journée boo xam ni bu am importance la ci ñun jeunesse Gassane ndax lii Gassane nekk Gassane ba tey c'est la première fois ñu doo ko fi gis doomu Gassane ñun ñi war di jàppale lépp loo xamante ni daal soxla ngeen ko ci nawetaan yi ñun dinañ leen ci jàppale bu soobee yàlla mu ñaax nag ndaw ñi ñu moytu lépp luy indi fitna ci nawetaan ci kasaan gi mu fekk baax ñi ngi leen di ñaan yéen a bokk ndey yéen a bokk baay yéen ay di fo yéen ay di dem école yéen ay di def lépp nawetaan yi ñetti weer la wala ñaari weer yi nawetaani gasaan sax motu ko bu leen xuloo bu leen xeex ku gañe ñu xam ne kii moo gañe bu ngeen fubalee ba ngoon jot àndaat leen ngeen foo ngeen ree violence baaxul day yàq ab dëkk seetaan it. laataa ñu yëkkati jataay bi dig na ñaari équipe yi war a jongante final bi nga xam ni moom lañ ko duppee yeneen i jumtukaay ba si sax ay blouson Mbaye Assane Diaw Gassane rajo Futurs Médias Baye Assane ñu jeexalee ko ak lamb ji CNG nee na dootul nangooti euh, certificat médicaux yi mbëri di indi ngir wane ne dañoo amee gaañu-gaañu di kayit yoo xamante ni lu gën a bëri ñi naan ay mbëru VIP ñoom ñoo koy indi bu seen combat jegee lii nag suñ ko bàyyee mu wéy day yàq lool lamb ji ci gis-gisu CNG mu xamle ko ci bataaxal bu ñu yónnee ba tax na kon léegi CNG nee na bépp mbër bu feebar wala amee gaañu-gaañu faaw mu dem rek euh, ci commission médical bu CNG bi ngir mu seetu ko ba moo mën a wax ndax mën na bëre wala déet